soirée ma defaraat sama toogaay tuuti le temps invité bi di yegg si je pense que mën nañ ma ko indi là euh, il peut euh, quitter euh, léegi nii loge télévision Futur Média enfin loge yi nekk ci ginnaaw bu ko defee mu ñëw ñu tàmbali waxtaan bi première partie bi dañuy waxtaan daanaka ba 13 heures ñu bàyyi leen ak rédaction bu télévision Futur Média bu rédaction bi euh, noppee euh, ci li nga xamante ni mooy euh, journal wolof bi ñu doog a ñëwaat nag ci deuxième wala dernière partie bu midi plus ci télévision Futur Média alors et on souhaite une très bonne journée à Madame Diallo Yaayu Dadi ak Sophia Euh, yaayu Papy Papy nag euh, c'est un grand footballeur waa Yoff xam nañu ko papi laay maxtaar ñu ngi lay béggee bu baax euh, di béggal Ami Dieng Diengos actuellement mu ngi fii ci Dakar neex a fekk New York laa ko laa ko tuddee nga xam ni tubaarkàll taaxam ba sama appartement yaa nga fa léegi nag ñu koy béggee bu baax di nuyu tamit Adja Touré elle est en train de regarder ci télévision Futur Média Isma Ndiaye Baye Binette merci de suivre cette émission ñu ngi lay béggee yow itam bu baax a baax <laughs> sama taalibe bi yegsi na daf leen ko ndànk nag na ngeen fexe ba bu ngeen koy installé micro yeeg yooyu ngeen def ko ndànk parce que bu ngeen ko gaañee seen TV lay toog wax lu rëy waa TFM kii bu yaboo ngeen raay ko jox ngeen ko kafe joxu leen ko kafe ah ah def ngeen def ngeen erreur de luppe ngeen luppe bu njëkk <laughs> ndax xam naa Safia seytaane la te mu ne ko ndax jox dañ la ndékki bi nga demee TFM Chamet Cissé la ñuy dalal tey ci euh, télévision Futur Média bu leen fàtte seen ay question ñu ngi koy xaar euh, ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi midi 34 euh, mooy doog a jot sa caméra ngi ne le ñun dañoo dañoo moderne de ñun bokk ñook ay Sen TV yooyu de. c'est que nawetaan moo bokkul ak li ñu <laughs> te <laughs> léegi nawetaan a bokk la Ligue des champions. nawetaan bokk la Ligue des champions de. mais man li ma li ma naqari mooy émission bi tey ñu bëri dañ doon ñaan nga bi danti ma bi danti. te looloo ma daal. ñaan bi daal na. gisoo xam nga suma kanam gi comme dëxin bu fanaan mais tey dafa mel ni mel ni dëxin bu gerte gi ëpp mu fanaan gis nga nen ma baal ñaawaay bi bind la. mais xanaa doo nelaw guddi. déedéet man daal minti moo ma woo. minti faal. na mhm. ma foo toll ma ne ko ci kaw lal mu ne ma jugal. <laughs> mais ñàkk sangu bon na mënumaa yëgati poxotaan sangu non sangu ma sérieusement mais borom xam-xam bu sanguwul di di ñëw ci télé pour waxtaan ak réew mi ci xam-xam ba pare sanguwul fonk rit fonk nit ñi rek xam nga rendez-vous dafa am solo <laughs> dëgg la bu la ko ñàkk sangu bu la ko sangu taxee yàqu xamoo importance su rendez-vous. mais mais nga ne en temps sa kanam gi comme dëxin bu fanaan. waaw mais bii dafa mel ni dëxin bu fanaan mais bu gerte gi ëpp. <laughs> ndaw dëxin bu dang day mel ni jaga yooyu ñuy togg ci ci camp militaire. noonu la kanam gi mel. <laughs> waxtaan bi la ñuy waaj a tàmbali léegi ndax Chamet Cissé Cheikh bi kontaan nañu tey. Mm-hmm. Euh, ci sa euh, teewaay ci euh, télévision Futur Média booba tey nag ñu ngi xaar jotaay bii di jotaay boo xam ne ay at a ngi ñu bëggoon ko. waaye tey la ko suñu borom dogal ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yeeg internautes yeeg képp koo xam ni daal yaa ngi seetaan ak ñii sous-marin ci suuf. parce que am na ci ñu bëri ñoo xamante ni boo leen ne si Cissé dañu naan ah man duma ko xool. Mhm. te dañuy làqatu di la xool. waaw noonu la ma bàyyi la nga nuyoog ñëpp. maa ngi nuyoo nuyoo boo xam ne dafa ëmb jàmm yërmande ak barke muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu ñi nga xam ne dañoo wóolu TFM. Mhm. ak ay plateforme ak Pape Cheikh Univers nga xam ne man bokk naa ci ñu leen di consommer mais man nëbbatuwuma mais loolu du yoon noonu nëbbatuwuma noo mën a nekkee ci télé di di seetaan beneen télé non Pape Cheikh Univers mais ku ko seetaanul looy seetaan waaw laa wax kay man non bu bu bu TFM non man ci Snapchat yi ak TikTok bi laa koy xaar. kon ko yowale quoi. parce que bëgg Pape Cheikh ak bëgg TFM c'est deux choses différentes. Mm, man dama laa bëgg. loolu du tey. <laughs> yàgg na Ahmed ab laay Wade ak Pape Cheikh Diallo den daan tax ma ñëw ba kaw Kaolack ngir mun leen a cons benn semaine dëpp ñi bi lan moo tax loolu euh, Pape seex dafay décortiquer musique waaw te musique man mélodie dafa bokk ci man boobu yaa ngi Gambie maa ngi Gambie Ahmed Aïdara bismillah jaraloon na ñàkk ay ak alaaji tëjal euh, ak waaw ak euh, <laughs> surtout tëjal mbiru tëj ak tëj dama ko bëgg waaw mbiru sama trio man Ahmed Aïdara Mamadou Mansour Mansour Diop alaaji tëjal boobu loolu loolu amatul ci waaw lépp lu jëm ci tëj ak tëj yi rajo neexatul waaw mais yow da nga bëgg yooyu ay tëj ak tijji. waaw dama ko bëgg lu tax. parce que suma mbir la suma domaine la. <laughs> tëjoo la surtout bu may sarse bay roof sarse <laughs> de. tey nag <laughs> dama ba chargeur bi dugg après téléphone bi chargé. léegi nag Cheikh Ahmed Tidiane man jubóowuma ak waa kër gi. Uh-huh. damaa bëgg tey looy wax rek na nga ko seet seetaataat ko. waaw ndax fi mu ne ñu ngi jonkon ju xool moindre faille man nag suturaal ma rek mag laa sama yaram neexul. nekk ci diggante buntu buntu génn beeg buntu toog bi laa ne nii. non yow kenn du la ko yolomal rek kenn du la génnee. <laughs> mais yaa bëgg affaire roof ak yëfu. yëfu waaw surtout su may roof téléphone bi di chargé. Ah. dugal ba muy tëb di dal. Mhm. suma xol bi day sedd ma xam ne téléphone bi mu ngi chargé. mais léegi balaa may détaillé dafa am laaj boo xamante ni euh, ñu bëri dañ koy laaj. Mhm. kan mooy Cheikh Ahmed Cissé yow yaay kan fan nga juddoo kan moo la jur foo jàngee xam-xam dañu jékki-jékki rek gis la. Mhm. coow li ne kur kan mooy Cheikh Ahmed Cissé. Cheikh Ahmed man dama ko daan gàttal dama daan wax ne Cheikh Ahmed. Mhm. ndoxam ma niiw la. lii loolu mooy sperme. loolu laa daan wax <laughs> mais léegi damay bëgg di ko détailler ne Cheikh Ahmed ci cosaanam. Mhm. Saalum Saalum la. Saalum mooy Kaolack. waaw mhm. Saalum mu ngi commencé ginnaaw Fatick ba biir Gambie. Gambie ci Saalum la bokk. 1911 euh, 1901 bi tubaab bi bëggee ñëw lakk ci kër maami Ahmed Khalifa Niass di maam El Hadj Abdoulaye Niass. Mm-hmm. bi mu génnee Sénégal suma kër maam la demoon pendant dix ans asile. Ah. kër Samba. fan Gambie. Hmm. nekk na fa boobu Baye Niass mu ngi nekk ci eh, jamono liir. Mm-hmm. maam El Hadj ak njabootam yum jur. ak ay taalibeem ak ay soxnaam dem suma kër maam pendant dix ndax suma maam waliw la buur la. jaam yi bu ñu xëyee. dugg ci àll bi lekk dafa jafe woon for ay gerte. indil ko maam Alaaji lépp lu baax ñu terale ko ko. ba maam Alaaji Abdoulaye wax ko na ko yowmal xiyaam bañ jëm. su ma fa amoon ci teraanga lu em ni gerte maak yow ñoo koy bokk. loolu moo dem ba Medina Baye tey soo fa demee. xalifa bi ñes lay sant imam bi siisa lay sant. Mm-hmm. looloo dëggal wax ji. Mm-hmm. ci famille boobu laa bokk. waaw ci Cissé Cissé mais pas Baye Niass. pas Baye d'accord ouais. mais euh, Mbadou li sa maam doon buur moo tax nga yore comportement buur. waa man buur la am ñu ne lu la neex ngay wax. waaw yaram dereti ceddo bi day yëngu. waaw ah. dereti sëriñ gi day yëngu. Ah. moo tax nit ñi am problème fan leen may canaliser. loolu laa la bëgg laaj parce que Sénégal foog nga sol benn mbubb benn nga nekk buur wala nga nekk fan ngay catégoriser catégoriser sa bopp. sëriñ nga wala boy town nii rek. man euh, nitu yàlla laa. nitu yàlla mooy waaw nitu yàlla mooy ku tënkuwul ci dara. ñi xam li ma xam. li ma sañ ñoom sañuñ ko. mais est-ce que loolu yoon la ñàkk tënku ci dara. ndax dañu nekk ci réew moo xamante ni il faut nga respecter ay règles il faut nga am ay normes yoo xam ne danga ko war a respecter il faut nga tegu ci yoon wala ci ay charte xam nga ci réew mi. waaw am na doomi réew moo xam ne tey boo doon dawal sa oto. dala naan peep mbilip nga taxaw. waaw mu laaj la say kër nga jox ko. loolu loolu règle bi loolu loolu mooy yoon sa règle mooy jox ko ko. waaw waaw ci sa bi ma nekk man suma règle bokkut ak règlement ñeneen ñi. parce que ab oustaz dafa am ci lu muy tënk yow oustaz nga. ab animateur non man weesu naa oustaz. sérieusement man nitu yàlla laa maa ngi ci beneen domaine man lu ma neex laay def lu ma def mu neex yàlla. mais lan moo la utile ak ñeneen ñi kon. ñeneen ñi dañu tënku ngay wax man comprendre ma ba tey. maanaam ñeneen ñi dañu tënku. dañu tënku ñoom. <laughs> dëgg la de sa kanam gi comme daxi. bu gerte gi ëpp <laughs> bu gerte gi <laughs> parce que maa ngi lay xool maa ngi lay jàng. Mm-hmm. man maa ngi mel ni ku la musul gis. dama impressionné moo tax bu may doxaan du ma teew téléphone rek ak Wave ba nga miin ma tàmm ma ma door a teew su ma teew da ngay découragé. <laughs> lan <laughs> <laughs> yàlla doo doo doo ustaas. non doo sëriñ. non du ma sëriñ parce que sëriñ. Mhm. comportement la mooy ki jàng ba pare. Mhm. jëfee lim jàng. Mhm. transformé ko ci ñeneen. d'accord kii mooy sëriñ. du juddu du ndono. ku mu neex mën nga nekk sëriñ. mais da ngay jàng. da jëfee li nga jàng. ba pare di ko transformé ci nit ñi. mooy yar leen ci bëgg yàlla. yar leen ci ragal yàlla koo koy sëriñ ustaas mooy ki jàng di ko jàngal nit ñi moom du yar kenn ustaas du yare jàngale kat jàngale kese jàngale rek mm-hmm. Mm-hmm. mais nit yàlla mooy koo xam ne yàlla may na ko sañ-sañ mm-hmm. nit ki dul ñeme wax moom ñeme na koo wax lu nit ki ñemewut a def moom ñeme na koo def euh, benn wàll wi dañ koo fekk mu am 16 jabar ñu ne ko ah ñun de dañoo jàng ne ñeenti jabar la nit war a am. normalement ñu doon la nga am 16. waaw yu bi xool ko ba mu yàgg nit yàlla bi xool ko ba mu yàgg na ko ñaar rek a ko sañ nag. saay-saay ak boroom sañ-sañ. yow nag foo ma canaliser baax na. te 16 jabar la am. jabar la sañ-sañ ci yàlla mën na may nit lu sariya mayewul. yow da nga am sañ-sañ kon. dama am sañ-sañ man laa zan ba aw ma. bàkkaar mais mais mais sañ-sañ boobu nag euh, euh, Chamet man bëgg naa xam nag fan nga ko teg wax dëgg yàlla. Euh, sori ci yàlla xam nga man damaa xam yàlla. ba pare xàmmee ko nit mën na xam yàlla te du ko xam xàmmee parce que tey nit mën na réer toog rek dara xew mu ne lii de yàlla rek a ko dogal wax na dëgg. waaw nit mën na toll situation ba ne dëgg-dëgg fii yàlla rek a fi ne wax na dëgg. Mhm. mais ndax xàmmee na ko. xam yàlla moom ñëpp ko def yow xam nga ne yàlla bind asamaan. xam nga ne moo rey sa maam xam nga ne moo téye sa yaay ju baax ji muy dund ak sa papa bu bari affaire bi fu mu dem di jox ay carte d'identité maa jur. sa nekkul sa papa non man def na ma ko. <laughs> arrêté na ma ne ma seema man la pap papi Pape Cheikh Diallo ma ne ko tàmm nga yi génnal si yi nga nekk. temps yi dama koy jox ay ga comprimé yooyu comprimé yi nelaw loo. da koy jox Vélion 5 moom bu ko naanee ni xam nga kañ lay yeewu. <laughs> après élection yi bu Amadou Ba gagné nguur gi. il faut nga jox ma moom ah yaay tudd affaire élection. bu ko naanee léegi sa papa. bu ñu defee élection ba Amadou Ba gagné ci lay yeewu. waaw ah, ku loo ne loolu laa bëgg loolu laa gis. 62 <laughs> pour cent lay gagné réew mi mais yow Gambien nga wala Sénégalais nga. man Sénégalais laa ci institution bi ni mu ko waxee. maanaam këyit. waa daf ne doomi Sénégalais koo xam ne sa yaay ak sa baay Sénégalais Sénégalais nga. waaw man suma yaay ak suma baay Sénégalais la. waaw ma am jabaru Sénégalais am doomi Sénégalais. xam nga man ci ci këyit ci charte réew mi. Uh-huh. xoolal njaga moom may <laughs> Ndiaga man Ndiaga Ndour mu fii xam xam nga lii jaaduwul <laughs> te ngaa jóg dem wuyu ji te duma ko wuyu ay directive la lay jox non duma ko wuyu <laughs> ku neexa lay woo <laughs> donc tey ay TFM kër gu waaye ndeysaan ci ci côté constitution bu Sénégal eh? sénégalais la uh-huh. ndax doomi ñaari doomi sénégalais ku ñu jur sénégalais la mm-hmm. man ndey ak baay Diosone la ñu dëkk Diosone ci Foundiougne Foundiougne ci Fatick Fatick ci Sénégal. kon sa ay ay ay ay waa Sénégal ñoo la jur. Sénégal ce que d'identité sénégalais nga yore. ñaar laa yor te dama cee am droit. Gambien la fa laa juddoo yaroo fa màggee ma am double national di ko doxee di ko waxee. léegi léegi kañ nga xamee ni yow pare nga pour jëfandikoo sa xam-xam parce que man man moom ba tey miinu ma la bu baax dama jékki-jékki rek comme ñëpp ñu gis la ci dëkk bi kañ nga tàmbali sa carrière. carrière bu lëj la nag ndax maanaam wàllum xam-xam bi may jàngale léegi. waaw maa ko commencé à l'âge de 14 ans. bi nga amee 14 ans. waaw xam-xamu la nga doon jàngale. mooy xam-xamu euh, awra. comme rafetal ko maa ngi ci télé. Ah, waaw waaw xam-xamu nu ñuy jëfandikoo awra. waaw mais wax koo kii daal teg ci. waaw wax ji daal de koy defar. waaw defar naa ba sonn. <laughs> wala yow defaral rek lu ñaaw mën na rafet awra ci defar defar. <laughs> <laughs> noo ko defaree mu ñaaw. defar ko rek. defar naa damaa weex donc defaral rek. waaw wàllum sëy daal. <laughs> waaw sëy maa ngi ko commencé xam à l'âge de 14 ans. da nga doon jaay ay garab ak yooyu. non non xam nga dafa am ay waajur. Mm-hmm. du ñuy bàyyi xel seen doom. Mm-hmm. Mm-hmm. te société bi ni mu bindoo. nit mën na jànkuwanteeg loo xam ne du ko sañ a wax. wala du ko ñemee wax. xam nga child molest. luy loolu. mooy mag yuy foyee xale. Mm-hmm. Ah, baaxul. dafay am. Mm-hmm. donc ma nekkoon ci situation boo xam ne. Mm-hmm. maa ngi woon ak ay mag yu doy waar. ñuy wax di def sa kanam. ngay dégg. waaw. Sénégal moo naxari naxari boo xam ne. di nga dund yenn histoire. doo ko ragal a wax doo ko bañ. mais boo ko waxee du jëriñ société bi. dëgg la au lieu que ñu jël ko comme leçon. dal na mi mirement. taxaw ne diwa ko violé ñu ne ko da ngaa weex bët da ngay wat sa bopp bi dangay ngay nangam. ah ñoom dañuy jugé rek. dal na ainsi de suite donc tu préfères bañ a gaañ société bi nga noppi mais ku teel a xam mbirum sëy la. Hmm, parce que da ko doon dégg mag ñi di ci wax waaw. di di ci wax di ci def loolu laa wax dafa dama mbëbës doon wax. donc ko jàng ci école wala dañ la ci former. parce que balaa ma koy jàng. waaw li ma ko teel a découvrir mooy mag ñu yemul mag ñu dem dayoo. Ah. di ci wax di ci def. nga doon leen fréquenter. ma nekk si si biir. nekk ah, xale nga bokk ci ci mag ñooñu mais nga ne nga xaleel leen. maanaam. <laughs> maanaam junj naa la ba sonn boo ma ràngatee ba ma dem ci leen lay dàq ay leen ma ma bañ a bàyyi ma ma seddal maa ngi kii damay buux ba ma buuxee nga may buux bay dem nga may buux bay dem <laughs> ba ma ne taraj te mbóot sax mbóot sax kenn du ko tànc ci mais yow rafetal naa wala da nga bëgg ma wax ko <laughs> waaw du ma la buux du ma la ah, buux bàyyi ma ok nga ne ci mag maanaam ay mag yu ma doon violé subhanallah mais loolu yow da nga ko dund waaw sérieusement billahi et à l'âge de très très when I was very young. fekk nga nekk xale xale bu ndaw. ñooñu ñan la woon pour ne pas. sori ay jigéen. mais nga nekk xale ñu lay jëfandikoo. waaw sérieusement. après daf la indil traumatisme. non man kay awra du ma traumatisé mais ni ma yàlla dimbalee ak fi mu ma jaarale ba ma dëgër. ba traumatisé wul ma. Mm-hmm. ñu fa jaar ñu bari daf leen di lor moo tax ma jël mbir mi wax la suma secret amul ustaas bu mën a jàngale lu ma xamul ci lislaam sëriñ boo fi xam bu sa xel dem kenn ëpput ma lijaa ba ñaan yàlla rek mu nangu loolu nit kooku doxul ci réew mi ma defam lu ma dund loo xam ne mënuma ko wax ma féetewoo ko su ma la waxee chaque jour lu may contacté ci xale di ans su ma jabari su ma jëkkër yaay moo may violé ma koy dox ba toog ak paa bi ba yedd ko te police du ci am yoon am yoo xam ne boo abusé ma yóbbu la sûreté urbaine xaw ma mooy ñi amee xale yi. parce que dañu ne maslaa tëj naa fa ñu bari. oui bu xale moom viol. mais doo doo ko mën a wax rajo doo ko mën a wax télé kaso viol tey yàlla dimbale na ma ma am papa ju baax waaye juddoo ci ron wàllu yàlla. Mm-hmm. man suma yaay ñaari doom la am ñu gaañoo. Mm-hmm. suma benn bàjjen dem ci wàllu yàlla bu mag bu ñuy wax Cheikh Omar mu ne ko xadi soxna mooy suma yaay ku sonn ci kër gi la te saa yu amee doom mu gaañu mu yëkkati teranga jox ko mu garanti man suma juddu maire bi toog na ko ah doyut ndax da daan am doom muy gaañu mu ne ko dina am doom góor lay doon balaa dee dina béjjaaw dana am doom ju góor man dama judduwaale su may béjjaaw 36 ans laa am yokk ma benn at waaw 23 janvier 1987 laa judd donc ma judd ci ron wàlliyu boobu am baay ju baax am yaay ju baax mais su ma demee jàngi école su ma ñëwaan wara a dem jàngi daara la ma ay jigéen daan téye di ma jëfandikoo mais mais li ngay wax nii viol la ñu gis ni xale bu dund viol bu màggee day doon lu diis ci moom pourquoi yow diisul ci yow ban ban force nga am wala psychologiquement lan moo la jàppale ba nga am ci dal ba war ko mën a nettali nii ak euh, ak ak ak sago. mooy li ma la wax rek waliwu yàlla jege ko dafay defar ci nit lu nit xamul. Mm-hmm. bàyyi ju baax dafay defar nit den ma ko daan def mu may trompe parce que xaw ma woon. Mm-hmm. noonu leen màggeek man ba ma am 14 ans ba xam nag lii lan la. Mm-hmm. ba daan yàkkamte rendez-vous jot. ah da nga demoon ba. tàmm muy mel ni waa ji doon violé muy yuuxum ñoo mën a dëpp leen far na dugg. moom dugub bi la doon bañ mais da ngay jàng école huit ans neuf ans doo xam sa ñaata at nga am mais bi may reconnaître di xam ci lan laa ne. maa ngi am quatorze ans. mais loolu lan moo ko indi ñàkk am doom ñàkk ko la wala am doom ñàkk ko topp rek di ko xool parce que wax nga ko léegi nii ci bi ñuy tàmbali. Euh, waajur yu bëri xamuñu sax seen ay doom. pauvreté am na ci yoon ñàkk moo tax man ñàkk laa gën a bañ. parce que su ma bàyyi dafa war a jàngale ci alxuraan. Mhm. su ma yaay day jaay bisaab màdd caakri. Mhm. ñu ngi tal luñ lekk ka doom yi. dëgg la. li mooy la triste réalité su ma bàyyi su demee ci daara ji fajar du ñëwaat ba guddi mu ngi jàngal doomi nit ñi bañ wàcc ñi muy pini mu jàngaleen su paree fa lay añee pare jàngalewaat waat pare toog jàngale guddi door a ñibbisi maa ngi ko daan gis ci daara ji su ma yaay dafay xëy jaay parce que ñun dañu am aadaay jabar dafa war a yokk dépense te jabari taalibe amul doole pour man ñàkk mooy les causes principales bi ma toogee analyser les choses. ñàkk laa ko jiiñ. te loolu mu am ba tey. mu ngi am ba tey ay yoo xam ne ñun ñii taluñu suñu doom. donc suñ demee. yaay dem na papa dem na benn xale bu góor mooy dugg simmi uniforme mooy li ñuy jàngee tenue. war a soluwaat dem daara ja diggante boobu leen may jëfandikoo. ak su ma jógee daara ja war a fooy ñaar yoon la daan doon. donc <clears throat> ma dem ba am 14 ans nekk ci loolu bi ma amee 17 ans. ma imagine man li ma dund dem na ba ay en fait góor bu lay jàngal alxuraan di la ko def ci daara ji. loolu dafa am. waaw ah, jaar naa ci loolu. da ko dund tamit. billaahi wallaahi tallaahi man du ma fen du ma waxantu. mais je veux maanaam waxuma jigéen ñi teg leen à xam naa damay dem ci daara ji pour jàngi ustaas bi ma doon jàngal def ma ko. te kooku mu ngi dund maa ngi koy xool nii mu may xool suma xarit yi ma jege xam neen kan la ba benn bis ma osé wax ci ak ma benn xarit kooku léegi mu ngi Europe mu ngi Allemagne kooku nijaay laa ci moom mu ne ma man it daf ma koy def ma ne duma jàngal ñu jàpp ma dóor ba ma ne du ma jàngal mënuma expliquer kan la parce que contexte bi ni mbir yi demee woon soo ko waxee da ngay dee parce que moom bu waatee duñu la gëm te mag dafa yàgg ñeme ñemee yàlla ñemee waat ci lu dul dëgg ma dund loolu yu know ci góor ak jege na nekk xale boobu li ma lay wax nii yëpp aw ma 14 ans. mais yow kon am nga traumatisme. ah ndax si si si parce que loolu yëpp nga dund. ci xale loolu loolu loolu dafa yéeme cheikh bi. waaw moom laa lay expliquer dund bi ma ko dund moo tax tey bi ma màggee yàlla teral ma yàlla may na ma tey man Pape Cheikh mun naa xamal nit yàlla ba mu xàmmee yàlla yàlla may na ma mun naa ñaanal nit zéro ba mu doon lu mu bëgg a doon. yàlla may na ma <clears throat> ku ma jël conseil lu ma la digal rek boo ko defee doo ko rëccu loolu ñi ma xam-xam neen ko <laughs> yàlla may ma wërsëg woo xam ne mun naa cee teral ku ne hmm. mais man maa tànn dama lay wax raison bi tax soo xoolee Cheikh Ahmed da ngay xam ne ëpp na loolu man mënoo ma wax influenceur ëpp naa ko. mënoo ma wax nangam nangam mais pourquoi lii. doo tiktoker doo influenceur non non man bokkuma ak ñoom. c'est damay utiliser yooyu. pour jàllale suma message. toujours derrière sumay message di nga reetaan di nga ne dafa vulgaire mais fond bi. am na lu ma bëgg a jàngale. donc li ma daal man laay protéger ñu bëri mais kenn xamul suma histoire. kenn xamul pourquoi waa ji ni mu ni mu éloquent mm-hmm. ni mu amee xam-xam su ma noppi woon tey man miin naa Sénégal miin boo xam ne mënoon naa ñëw jouer saint yiwal ko ak maa ko mën ba nekk député ba nekk maire ba nekk ministre xam naa Sénégal yi mm-hmm. Mm-hmm. mais su boobaa kooku du man dafa am lu ma dal am lu ma daj am lu ma dund bugguma ñeneen dund ko du ma ñëw na di ko expliquer suma bopp comme nii fu mu nekk su ma fi jógee sit yi dañuy ñëwaat kan la woon ku la nangam mais man duma leen fi laa koy waxee tëj naa ko mayuma ku ma ci laajate bañu ma ko mais du loolu laa soxla mais après bi ma dundee loolu su ma yaay dem na ba bi muy waaj a gaañu laa ko wax danga ko nëbboon ba ni nga màggee waaw di ci waxtaan ak sumay xarit ne ko kii la nii la demee nii la demee nii la demee. mais loolu loolu dafa Babacar Diaw xale bu ndaw jigéen violé la góor Babacar Diaw suma xarit xam na ko. subhanallah maa bi tey xam na ko suma papa xam na suma yaay xam na sumay rakk xam nañu. dama lay expliquer na la lii ak lii ak lii ak lii laa dund ma yem ci mais man euh, suma jabar billaahi wallaahi tallaahi dafay toog mu ne ma yow naa fex nga ma ne ko lu mu ne ma ni ngay waxee awra te dinga nga ma tiim weer doo ma tëddee jigéen safuma ma vrai dire lu tax loolu because gisatuma lu ci neex oh. bu doon sàppi sàppi na ma. waaw mais loolu ci traumatisme la bokk. non su ma waxee gisatuma lu ma ci neex da nekkul dama dëgër bopp ci traumatisme de maanaam man maa bëgg yàlla be li may wax lu bëri safuma on vrai diir quoi mën naa nekk nag dem doxaan fii yéeg wàcc yi nga mais su ma di wéetee noonu li ma saf ci àdduna lu néew la danga nga bëgg a wax ni ki ñu foog ni kooku nga non ñoom xam neen ko man soo may seetaan da ngay jaxasoo da dem ba ne waa ji lan la kan la amul kum dalul ci man ah. te bizarrement li ci gën a yéeme su ma fan yëpp noonu démb leen woon ñoom dañuy bañ ba mujj duñu am pexe bëgg ma <laughs> am histoire dama leen forcer mais pour wan la que. ku neex laa invité tey li tax oh, yàlla na ma yàlla suturaal rek ba ma def émission bi ci jàmm ba mu jeex. dinaa ci jàpp dinaa ci jàpp <laughs> dinaa ci jàpp. non damay tooñ man coono lii la neex damay tooñ damay tooñ. donc tey waaw. Uh-huh. fii ma jaar. moo tax toujours damay junj benn wax ma ne li may dimbale nit ci suma communication. Mm-hmm. man moo ma doy ci jaamu yàlla. bëri dëgg la dëgg la jigéen dafay wax ak man ne man duma daanu. ma ko ñaata doom nga mu ne ñett ma ne ko lu tax muy expliqué lu mu expliqué ma ne ko du raison. ndax kersa mu ngi fi. mais suñ demee ba mu yàgg. mu ne ma kii moom ma violé. Oh. am na ñoo xam ne seen jëkkër ñoo leen violé dañ leen leen may bëgguñ leen ñu forcé leen. ba pare di leen liggéey ñu ngi toog ci sëy bi seen première noonu mooy seen jëkkër te moo jur seeni doom. loolu dafa bëri Sénégal ah. mais man chaque jour dinaa ci am 15 cas. wala lu ëpp. maanaam ñoom dañoo wóolu di def confession ci yow. ak ñoo xam ne tey dañuy sëy ak góor mu dem ba yoom góor gi du leen fase duñ ko mën a wax ñuy dem di ut bànneex feneen di njaalo man lañuy waxal ba ma dem seen jëkkër ba toog ak ñoom wan leen ne fase leen ko te yàlla tax man tas naa sëy yooyu mais jëkkër ji day mujj doon suma xarit jabar ji doon suma xarit xale yi ma doon seen nijaay loolu maa ngi koy def ci dëkk bi mais du looy wax mais soo xamee li ngay defal yàlla daf lay doy rek saaga ñu lay saaga ak critique yi moo tax nekkul ne yëguma ko mhm. mais dama gis lu ma ko ëppal mhm. yow mi xamul dara téye sa clavier doon ci iro sa nangamtaanu ndey mu leer ma ne sauvé naa nit koo xam ne mu ngi doon njaalo ji société bi moo ko tënk ba jëkkëram mënu ko wax dama yoom société bi tënk ko ba mënta tas man dimbale naa ko mu tas gën gën naa laa fan bis ni ki tey lii lii lay def moo tax man ma ne wax naa ko mais nit ñi comprendre dama ne suma doom bu màggee yoon bi ma nekk di dimbali nit ñi laa ko bëgg a teg mais nit ñi xamuñ fu may wax am nga ay doom am naa benn bu jigéen bu rafet ah, mais du ma la ko <laughs> waxtaan bi bëgg naa ñu àggali ko ci kanam ndax am na solo gis nga eh, li may faral di dégg ñu koy wax koo xamul de ko woowee e réew mi nag dañoo gaaw eh, ci bañ a woowee e nit ñu xamul daañu tontu Euh, ay laaj yoo xamante ni dina jo dina jóge ci yéen am na ci yoo xamante ni ci man lay jógee mais d'abord euh, dama bëggoon ñu teg publicité yi en attendant Faty Dieng di ñu présenter journal wolof bi bu ko defee nag bu journal beek yépp jàllee ñu gën a jël suñu temps man ak euh, Cheikh ci Cissé tey ci midi plus bi ñoom ñëpp ay phénomène lañu te semaine bi yépp kenn ku ci nekk naa jéem waxtaan ak yow ku wax feeñ. thank you